anduma que euh, xale bu jog di danel nguur te ay fena ko lal man anduma ci je les respecte ci côté rap mais côté politique je les respecte pas et que ça soit clair je n'ai aucun temps avec eux je les respecte en tant que rappeur li ont dénoncer des côtés politique politiques sociales bi rap je les respecte mais bu ñu duggee ci langue politique je suis pas Y en a man espoir dans la vie man ne suis nit un homme qui damay naan espoir j'en ai marre non non man jamais duma maar damay jóg ñafe pour pousse pour gën a pour sama marier. jëm mais je les respecte en tant que eux parce que tamit je pense que làmmiñ du lekk moromam te ñorul te dañu ne kuy denc ci jajj na ko moor max yëg c'est important man dama leen yéene ay milliards parce que c'est des personnes ñi am milliards ñi gënuñu waa yaanaa maar c'est des personnes comme tout le monde dañu war a am dañu war a dund dañu war a dundale mais pourquoi sa communication nga taxaw mu nga ne ma man je fais des quêtes je vends des t-shirts pour survivre alors que derrière il y a des organisations ils sont contre l'Afrique ils créent que des polémiques pour l'Afrique ils créent que des guerres pour l'Afrique ces institutions ces comment on les appelle encore ces organisations qui disent que c'est des organisations à but lucratif, sociaux, culturels, euh, ainsi de suite, qui, c'est mais, tout va Tubab ne du neex ba ma nit ko ñuul man suma nga dem lëkkaloog tubaab yi ñu lay pour ngay naan damay sax ah fais attention ndax tubaab du dara ci dara jamais même les gouttes yi ñuy jox dans les daara euh, dans les écoles ñëw ñu ne dañ lay pour la gratuit c'est facile donc il faut être intelligent dans la vie. C'est pas ça. du du du du c'est des c'est des organismes qui sont financés pour nous indil ñuy Afrique C'est ce que a il faut que il faut que africains yi gis am une petite l'air. il faut que qu'ils voient clair il faut que africains il faut que le monde a changé ñu avons ak monde bi changé dem ci vrai vrai développement bi ñu dem nous avons ñuy Molière euh, dans les universités Nous li Sénégal de deful justice lan ngay def lettre Bo deful lettre lan comptabilité ah, gestion Lo Sénégal pour lan ñu am ay savant Lolo tax sama un texte bu euh, ordonnance bu des chercheurs qui cherchent on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. comprendre nga lu ku bëgg a rey sa xaj nag da nga koy xeeñal médd looloo dal tubaab yeeg sa africain yi africain yi